mooy buur ba yore jàmm ba tax na mu xéewalal ñu askanu jullit ba ñu nekkee mooy kañi xéewalal waxtu su néew ci ginnaaw keroog ba ñu déggee noddkat bi di yëglu ne kaay leen ci julli ba leen di jokkale seen boroom kaay leen ci texe ba nga xamante ne fa ngeen di amee texey àddina ak texe àllaaxira waaye julli moo gën nelaw ba ngeen nekkee képp ku buur yàlla wërsëgal nga am kàttan yeewu ci nelaw jóg ba yeewu ne ba yëg ni yeew nga nga yëg ni ximmaliku nga lala fa yonent bi jàngal mooy nanga nga tudd baat ba ñuy tudd gannaaw bu jullit bi yeewoo ci nelaw te mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur nga ne mboolem xeetu cant yu kawe yeeg cant yu matale ñeel nañu yàlla ndax yalla mooy buur bi nga xamante ne moo ma delloo sama ruux gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te wa ilayhi nushur ci yàlla dong la ñuy dellu moo tax képp ko ñuy tàggee gannaaw bu mu jógee ko ci dundu àddina duñ ne dinañ ko jébbal kenn duñ ne dinañ ko jébbal fulaana wala diw fulaan dañ ko naan dinañ ko jébbal boromam te loolu mooy lu am boromam lañ koy jébbal ba tax na duñu dellu ci kenn duñu dellu feneen fu dut fa yàlla duñu dellu ci kenn ku dut fa yàlla moo tax ñu déggee ci njeexantalu ñaan wi ñu naan wa ilayhi nushur gannaaw bu ñu noppee ci dund bi ci buur yàlla la ñuy dellu subhaanahu wa taala mbokk yi yéen a ngi fàttaleku ñu doon waxtaan ak yéen suñu waxtaan ya weesu bunt bi nga xamante ne mooy xéewalu yàlla ci jaamam buur yàlla doy na rek mun nañu wa in ta'uddu ni'matallahi la taxsuha bu ngeen fi nekkee lim la leen yàlla wërsëgal ci xiitu xéewal du ngeen ko dajal lu jiitu loolu bu ñu yéggee ci kaw tuuti dinañu gis la jiitu aaya bi mu di ñu wax ne wa aataakum min kulli ma saaltumuh wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha yàlla mooy ki leen jox mooy ki leen may mooy ki leen tàggatal bépp xéewal bam leen xéewalal lépp li ngeen ko ñaan jox na leen ko lépp li ngeen sàkku fa moom defal na leen ko waaye bu ngeen fi nekkee naan dangeen di géem a lim xéewalu yàlla yi bur yàlla ne ñoo laa tax suuxa di ngeen ko dajal du ngeen ko matal ba tax na buur yàlla tabaaraka wa taala ñoo mooy ku ñu xéewalal mooy ki ñu wërsëgal mooy ki nga xamante ne moo ñu jox loolu ñu di ko ñaan te ñu soxla ko ci moom mu nañu ba ngeen fi nekkee naan dangeen ngeen koy géema lim du ngeen ko peeg du ngeen ko dajal te du ngeen ko mosa sax lim ba tax na bokk na ci xéewal yooyu buur yàlla tabaraka wa taala ñu tuut tànk tuut tànk yooyu tuut tànk yi nga xamante ne yonent bi lim ci wax nee nañu ci xadiisu bam ñu doon wax ne kullu mawlad yulad ala al fitra fitratullah allati fatara annaasa bépp doom dina gann ci àddina ci leeru yàlla waaye ñaari wayjuri ñooy géema a góorgóorlu ba jébbil leeru yàlla woowu ci doom bi waaye ñoo koy sàggane ba seytaane ñëf kuf doom yoowu yóbbu ko ci yoonu alyahud waaye ñaari way juri ñooy sàggane ci doom woowu bi seytaane ñëw këf ko yóbbu ko ci yoonu nasaraan waaye ñaari way juri yooyu ñooy sàggane bi seytaane ñëw këftu tànk boobu yóbbu ko ci yoonu almajuus moo tax mu ne kullu mawlud yulad alal fitra fa abawaahu yu xawwidaanihi aw yu nasaraanihi aw yu majjusaanihi neena na bépp tuut bépp gone bépp liir ba ganesee àddina day ganese àddina àndaalek leeru yàlla nee ñaari wayjur yooyu ñuy góor góorlu ci xale woowee ba mu leeru yàlla ñu joxe commentaire bu ndaw ci kado boobu yàlla jox ñaari wuyjur yi mu doon gone mu doon tuut tànk bu dee kooku dafa màggee ci keppaar bi nga xamante ne du fa dégg saaga du fa dégg jëw du fa dégg baat yu vulgaire du fa dégg anam yi nga xamante ne dafa violante kooku dañ bu màggee day nekk nit ku am jàmm nit ku mucc ayib ndax bu fa déggut yii ya jàkkaarloog baat yeñ leen tuudal nii moom lay faral di dégg masalan day dégg kuy dugg ne asalaamaaleykum xale bi bu demee ba màggee ci loolu danaan a ah, ndekete nit booy dugg béréb danga naan asalaamualeykum góor gi bu génnee day ñaan bismillahi tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah xale bi màggee ci loolee mu gis ne papam buy génn danaan bismillah tawakkaltu ala laa hawla wala quwata illa billah wala muy wax bismillah tawakkaltu alal hayyu alladi laa yamuut maa ngi tàmbali sama génn bi ci turu yàlla buur bi nga xamante ne moo fi nekk di buur sax dàkk du fi musa a jóge waaye beneen ñaan bi dalaan bismillah maa ngi tàmbali sama génn bi ci turu yàlla laa hawla amul benn pexe wala quwwata amul wenn kattan illaa billah lu dul pexe ba tukkee koo fa yàlla wala kattan ba bàyyee fa yàlla doom bi bu fekkente ne yii yépp da koy mémoriser da koy bàyyi xel kooku buy génn du def lenn du def leneen lulut la mu gis ne ñaari wuy juraam yi noonu lañuy ñuy génnee seen bunti kër ñu ne doom jooju bi léegi bu gisee ñaari waajuram yi nga xamante ne ñoo ko meññ mu gis seen keppaar balaa ñuy lekk dañuy raxasu balaa ñuy lekk dañu naan bismillah bu ñu demee bay lekk la nekk seen kanam moom la ñuy lekk bu ñu lekkee ba noppi dañuy delloo yàlla njukkal sant ko ne alhamdulillahi alladi atamani haada wa razaqanihi bi xayri xawlin wala quwatin nii mboolem xeetu cant yu matale ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne moo ma jox ñam bi ma jëfandikoo nii te mu wërsëgal ma ko ci lu dul kàttan bi ma amal sama bopp ñam bi ci lu dul pexe ak dugg-dugg ba ma mënal sama bopp bi ma am ñam bi aw ma kàttan bi ma mën a fàggul ñam bi sama bopp awma kàttan walla lijjanti bi mu mun a lijjanti ba ñam sotti kàttan ba tax a sottiloo ñambi bi yàlla la lijjanti ba tax ñam nekk fi yàlla la kon yàlla moo ma kàttanal ba ma am kàttan ba tax ma am ñambi bi ba ma di ko jëfandikoo pexe yàlla moo sotti ci man ci namelam ba ma mun a lijjanti ñam bi ci samay pexe ma jëfandikoo ko xale bi bu màggee ci lii kooku mooy xale bi nga xamante ni woy juraam yi dañ kaa tette ñu ne xale boobu mooy xale ba nga xamante ne saa yu mu yeewoo nelaw mu gis woy juraam bu góor yeewu nelaw mu gis way juram bu góor bi yeewu ci nelaw danaan alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amaatana wa ilayhi nushuur kooku bu màggee ci keppar bi ni bu yeewoo nelaw la waajuraam bi di tudd moom lay tudd kii mooy gone goo xamante ne bu gisee waajuram bu góor walla waajuram di jigéen muy dugg gànnuwaay danaan allahumma inni audu bika min alxubuthi walxabaa'is yàlla maa ngi muslu fa yow yàlla nga ma musal seytaane yu taqay ci góor ak seytaane yu taqay ci jigéen ndax béréb boobu bérébu seytaane la te dañ lay taqal foofu ci sa càggante mun nañ laa taqal ci la nga dut mun a yëg waaye bu fekkente ne danga sàkku musluwaay fa yàlla nga dugg ci béréb boobee dañ lay ragal dañuy tiit danaan jullit dugg na fi mbokk yi mokkal nañu lu gën a difficile yiñ leen di tuddal nii suñu tuut tànk yi ana luñ leen di won ci tablette yañ leen di jëndal ci xaalis bu takku est-ce mu nga fa bu dee waaw fa lillahi alhamdu wal minna ñu sant yàlla ci xéewal bam ñu defal ci loole bu dee déet baate yu ñu tudd nii nekkul ci tablette yooyu hmm. est-ce du aoli waalidey ni mu mu ngi ci tablette ya ñuy jëndal suñu doom yi ci xaalis bu takku est-ce que ñaanu ñaari waajur yee tuut tànk bi di géem a réciter mu di ko mokkal est-ce que mu ci tablette ba nga jëndal sa doom deux cent cinquante mille wala cent cinquante mille bu dee naam ñaan yi ñu nga fa kon fa lillahi alhamdu wal minna ñu bokk sant yàlla ci xéwal bam ñu xéwalal ci loole waaye bu dee déet hmm, baaxul de kon fii ñu gis ne ñaari wayjur ya yonentu bi ne ñooñu ñooy géem a góor góoru ci tu tànk bi ba mu may ba mu meññu waale mu jébbi waale mu meññ waale lañ ko mooñaale loolu liggéeyu wuyjur bi la ci doomam waaye càggante bi nag yonentu bi leeralal nañ ñu ko de nee na càggante bi moo koy yóbbee ba nasaraan bi kof ko mu nekk nasaraan waaye càggante bi bi léegi mën naa doon la tax al bi ñëw këf ko mu def ko mu doon juif mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seen njaboot xam ngeen ne lay tax ñuy waxtaan ak yéen ci tuut tànk ya nga xamante ne moom lañ ñu yàlla dënk xamal ne lii moomoo ko yàlla moola ko dénk buur yàlla moo la ko jox texte bi gan nañ la kaa yaxanal ci anam ya nga xamante ne mooy anam yu fasante ko ci tiiri bi ndax bu ñu demee xool ci suuratu luqmaan buur yàlla tabaraka wa keroog waxtaanoon nañ ñekk yenn ñu ne leen ne luqmaan da doon waxtaan ak doomam da doon discuter doomam la lam ko njëkk a muy tëndikuloo mooy bokkaale yàlla ñu gis ne luqumaan waxut doomaam ba xam nagi sàmm nga leen waxut doomaam bi ne ba xam magasin bi yaa ngi ciy bàyyi xel waxut doom bi ne compte bancaire bi ñaata fa nekk waxut doomam ne sance bi fu mu toll waxut doomam ne isin bi la fa nekk nu mu nekkee foofe moo ne loolu yëpp Luqmaan war na kaa mën a laaj doomam te mën naka kaa laaj ndax ale la ba mu yore te moo ko war a mën a saytul ka pappam waaye Luqmaan jël na matériel wu lépp teg nee amul ci dara ci soxla ba muy laaj doomam ci matériel àddina waaye danger bi nga xamante ne moo gën a garaaw choc ba oto bi di am ci autoroute aps péage wala lépp luy daw wala lépp luy naaw ci jaww ji danger ba Lukmaan di muy tundikuloo doomam danger boobu moo ëpp choc ya ñuy gis ci jaww yeeg ci tali danger boobu moy lan luqmaan dandi doomam yaa bu ney yow sama ndoom ngelawaay bu dee amul dara looy bañ a def bu dee amul dara linga nga bañ a nekkee waaye bokkaale yàlla bum ci nekk defal lu la neex waaye bokkaale yàlla moom bu nekk ci sa jëf ya ngay jëf de yaa bunayya yow sama doom laa tushriku billah la Luqmaan wax doomam la waaye bul bokkaale ki yàlla ak dara bul bokkaale ki yàlla ak lenn mel ni doom bi dakaa laaj waaye bàyyi lu tax bu ma bokkaale ki yàlla dara Luqmaan ne ko inna shirka naka lii di bokkaale de la zulmun azim tooñ gënu koo rëy tooñ gënu koo màgg la dulumun adim lëndëm lëndëmaay la boo xamante ne leeru yàlla du nangoo installé ci xolu bokkaale kat ba fees dell ak lëndëm Luqmaan di discuter doomam mu di ko conseil conseil bi yàlla gis ne ah conseil bi neex na ma lool te am na yonent ba ma war a yónni téere ba ma ko war a jox conseil bi war na kafaa di xëñ suñu borom tabaraka wa taala validé doon waxtaan ak doomam conseil ba luqmaan doon conseil doomam yàlla validé ko fa mu daldi di feddali ndénkaane bu mu dénk ñaari wuy jur yameñ tut tànk boobu ne wa wassayna al insaana ñoo dénk doomu aadama bi waalidayhi ñaari wuyjuram ñu doon nit ni moom xamalatuhu ummuhu wax nan ala wax yàlla ne ndénkaane boobu ma wóolu ci yaay ji mu ëmb ko mu yenn ko coono ci kaw coono tayal ci kaw tayal ku ko weddi lajjal ña yàlla nattoo melokaan woowu ak l'heure actuelle soxna mari bu dee noonu la bu dee di noonu nag ñu ngi jégalu taalibe nasaraani yàlla ne wa fisaaluhu fi amayni an ishkur li wali walidayka ilayal masir ngir nga sant ma man yàlla nampal beeg feeral bi yëpp yàlla ne maako ko mu doon ñaari at yu mat sëkk yàlla ne li tax ma def loolu ngir nga sant ma man yàlla mala defal lii wa ilayal masir ngeen xam ne yéen ñépp ak mboole mbindaa foo ni ci man yàlla ngeen di delsi ba tax na képp koo xamante ne yar nga sa doom ci anam bi te buur yàlla suñu boroom tabaraka wa mu di ñu wax ci maanaa aaya ci alquran ci suratu shura yàlla buur bi tabaraka wa taala mooy ki moom nguuru juróom-ñaari asamaan mooy ki moom nguuru juróom-ñaari suuf waaye mooy bind lu ko soob mooy may ki ko soob ay jigéen kese du si boole góor mooy may ki ko soob ay góoru kese du si boole jigéen waaye mooy may ki ko soob góor ak jigéen mu jaxase ko waaye mooy bind ku ko soob kooku du am doom sax faf yàlla nag buur la ki xam la mu def waaye ki man la mu def la moo tax mu ne lillaahi mulku samaawaati wal ard yaxluqu maa yashaa yahabu maa yashaa yaxluqu maa yashaa yahabu liman yashaa inaasan wa yahabu liman yashaa dhukuran aw yuzawijuhum dukraanan wa inaasa wa yajcalu man yashaau wa yajcalu man yashaau aqima innahu alimun qadir bur yàlla ne li ma leen wax nii ci aaya bi man maaka man te maaka xam la tax ma def ko maaka xam xam naa la tax ma def ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne képp ku góor ci sa tuut tànk nga di ko conseiller di jëflanteeg moom anam bi nga xamante ne muy anam ba islaam tëral muy anam ba mu andi moom yonent bi andi ko mu doon la nga xamante ne moom la jullit bi di dund ci pénc bi ba tax na yàlla joxale ko téere bi nga xamante ne buur yàlla daf ñu ne kitaabun da di téere boo xamante ne anzalnaahu ilayka ñoo ko wàccee ci yow yonent bi mubaarakun mu di téere ju am barke li yadabbaru aayaatihi ngir ngeen war a mën a settantal aya yafa nekk kawtéef ya fa nekk waaye nag wali yatadakkara ulul albaab boroom xel yu xuuti boroom xel yu yanjey ñu war si mun a xelu ñu wara a mën a xelaat aya yafa nekk su ko defee ñu war ko mun a xelel waa penc bi ñoom it ñu war si wara mëna mën a kon aaya alquran dañ ko war a saytu dañ ci war a def investigation dañ ci war a def richerche dañ ci war a gëstu def ci recherche yoo xamante ne foo ko nattoo weesu na ko waaye nag boroom xel yu yànje yi tamit war nañ ci war a mën a xelaat xelaat bu xóot ñu di ci tëggee la nga xamante ne mooy lay njëriñ askan bi te ñu jëlee ko fii ma yuhibbuhu llahu wa yarda ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ñu ne ci mbooleem la nga xamante ne mooy ki juddu ci diine dañoo laajte hal diinu lladi yuladu alayhi l insaan huwa diinun xaq ñu ne tontu bi mooy al insaanu yulad ala fitrati tawxid kama fi qawli nabiyi sallallahu alayhi wa sallam kullu mawluudin yuwlad ala alfitra fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassaraanihi aw yumajjusaanihi muttafaqun alayhi saxiihun xadiisun abi hurayrata radiyallahu anhu walakin haadihi alfitra laa takfi li maarifatu tafaasilu tawxiid wa kayfiyatu ibaadatullahi jalla wa ala bal laa budda min taalimin wa tafqihi fi diin wa itibaa'i rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa taa'atuhu li annahu mablaga an rabbihi subhaanahu li annahu mablaga an rabbihi subhaanahu maa yaxtaaju ilayhi ibaada min tafasilin

xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa diine bu mu dikkee mu andil ñu ko mu jëlee ko fa yàlla diine bu ñu neexal la yàlla ci mboolem côté ci mboolem fànn muy ci alxuraan ak ci njàngale yonent bi di sunna moo ne dañoo laaj ñu ne ba xam tu tànk ba gani ci àddina te mu fekk diine boobu moo nekk ci ëtt ba mu ganisee àddina ba xam diine boobu mooy lu déggu ngir mu nekkee ko ñu tontu ci ne boroom xam-xam bi tontu si ne mu ne naka doomu aadama bi dee dina ganesi àddina ci leeru yàlla te mooy wéetal yàlla bañ koo bokkaale dara noonu la doomu aadama di ganesi àddina comme nu mu nekkee ci kàddu bu sell ba ñu yonent bi baaxee sala sallam ci xadisu abi hurayrata radiallahu anhu nee na bépp tuut tànk ba génn ci àddina de day génn ci àddina ak leeru yàlla bay doon lan tax muy wiital yàlla mu bañ koo bokkaale ak dara noonu la tuut tànk bi di génn ci àddina mooy fitratullah waaye yonent bi nee na ñaari wuyjur yi ñooy sàggane ci xale bi bi mu doon juif ñaari wayjur yi ñooy sàggane ci xale bi bi xale bi doon nasaara waaye ñaari wayjur yi ñooy sàggane ci xale bi bi xale bi doon majuusi xadis bi buxaari muslim dëppoo nañ ne xadis bu wér la ci xadisu abi hurayra tey bindkat bi nee na waaye li fi nekk mooy lii du leer yàlla ba xale bi ganne waale seg moom dikk ñëw ca àddina si du doy kese pour mu xam yàlla waaye dafa am ay taxale la nga xamante ne moo koy taxale diggante wital yàlla ak bokkaale yàlla loolu xam-xam la taxale ba koy taxale na muy jaamoo yàlla taxale ba koy taxale ne noddu mooy waajtaayu julli ngir nga jaamu sa borom subhaanahu wa waaye neena tamit du ñàkk ñu jàngal ko la nga xamante ne mooy jaamu yàlla woowu ana la koy laabal ana la koy ñoŋal ak nag koy setal ndax jaamu yàlla woowu dafa war a ànd ak laab ak set ak cellaange la koy defee noonu la koy waral ba loolu sotti loolu daka wara a jàng loolu des ñu ko jàng ah loolu dañ koy jàng bi xam ko nee na njàng boobu muy jàng nañuy jaamoo yàlla walla nañuy jëfandikoo diini islaam ba mu nekkee ak topp yonent bi sallallahu alayhi loolu yëpp dañ koy jàng waaw ndax topp yonent bi mooy la yonent bi jëlee ci yàlla mu daldi ko jottalil doomu aadama yi te loolu mooy la nga xamante ne loolu mooy lu jiitu lu tuut tànk bi njëkk la tuut tànk bi war a njëkk a yittewoo war dëkkuwaay naam baax na war naa yittewoo la muy lekk naam baax na war naa yittewoo la muy sol lañ koy muur bu dee jamonoy seddaay la war naa mbàjj bu dee jamonoy tàngoor la wan naa yittewu ay yére yu woyof loolu yëpp baax na waaye yitteem lu njëkk la mu war a soxla la ko waajur bi war a soxlaal mooy lan mooy xam yàlla wiital ko bañ ko bokkaaleeg dara moo tax nee na waajur bi góor moo xam waajur bu jigéen bu fekkee ne taxawee na taxawaay bi ba tax na mu taqale ko bokkaale yàlla mu taqale bokkaale yàlla ak wéetal yàlla ci mbiru diine ba mu nekk di dund ñu ne kooku noonu moo xam anamu win anamu na muy jaamoo yàlla kookoo xam na moo na muy jaamoo yàlla ba tax na loolu mooy tax muy doon jullit ba nangoo jibal boppam fa yàlla kooku mooy jullit bi nga xamante ne kooku mooy ki xam boromam la tax yàlla bind ko nee na loolu firnde bi mooy la yàlla wax ci suuratul euh, zaariyaat yàlla suñu boroom tabaraka wa taala ne ñu wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduuni binduma jinne yeeg doomu aadama yi ci lenn dara taxul ma bind leen lu dul ñu jaamoo man yàlla kon gone googu bu xamee lii ci diggante ñaari wuy juram gone googu mooy ki nga xamante ne mooy dund ci pénc bi du saaga du xeex du tur deret du doon agresseur du doon kuy bundu nit ñi ci seeni alal ak seeni nekkin mbokk yi mujjanteelu doom jooju ci askan bi ki ko bëgg a xam nag ñu may nopp incha allah beneen jotaay ci waxtaanu fajar fii ci réew mi fm 97 point 5 dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi waaye waxtaan bi moom jeexul ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala di ko ne rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu ayunin waj'alna lil muttaqina imama yàlla ñu yàlla may zurriyatan tayyibatan saaliha yàlla ñu yàlla may ay njaboot yu ragal yàlla ay njaboot yu baax njaboot yu fegu njaboot yu téye seeni loxo ci xeetu loraange ya ñuy jëmale ci nit ñi yàlla bu yàlla def suñuy njaboot ñuy tuur deret yàlla bu yàlla def suñuy njaboot ñuy toroxal julit yal na yàlla sàmm suñu jeunesse su réew mi yal na yàlla tàggat xolu jeunesse su réew mi mu déppale ko ak lépp lu mu sopp moom yàlla tabaraka wa taala allahuma aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha allahuma ya rabbi aminna fi awtanina waslih allahuma aimatana wulata umurina allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahar minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baraka allahu li wa lakum fi alqurani alazim wa nafani llahu wa iyakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu